lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek dinañ leen ko toppal rawatina nag seen bi nga xam ne moom ngeen di suivre muy seen bu mag bi di fekke TV bépp vidéo bu ngeen dugal rek ngeen ko am temps réel bës leen cloche de notification bi ngeen bës vidéo bu xam ne dugal naa ko rek di ngeen ko am temps temps réel ñi nga mat mbégte bu baax a baax xam ne ku ne Makan Mbeng moo ñu woon fële ci arène nationale ci combat bu doy waar ci diggante Lac Rose ki nga xam ne moom moo di Jackson ngeen gis nag ni nga xam ne moom la Lac Rose bëree ak Jackson ngeen gis mu nekkoon combat boo xam te ni combat bu doy waar la woon combat la boo xam te ni lu am solo la woon ci Lac Rose muy ci ndam daf ko ñoroloon ndax dafa indi woon rakkam démb Papa Ndoy mu bëri ak ki nga xam ne moom moo di caat Daouda Fall yàlla mi nga xam ne moom moo yar ndam di joxe ndam daal di xañ ki nga xam ne moom moo di Pap Pap Ndoy ndam jox ko caat Daouda Fall waaye yàlla mu xañoon ki nga xam ne moom moo di Pap ndooy ndam moo jox Lac tey ndam lu sedd guy ci kaw Jackson mu nekkoon nag combat boo xam te ni combat bu amoon enjeu la mu nekkoon combat boo xam te ni ñu ci baree baree baree baree bare Jackson la ñu joxoon favori ndax ci combat bi ci palmarèsu Jackson ci ak ndaanaan ñi nga xam ne moom la bëreel mbokk yi naa leen wax nag combat bi ci lu doy waar donte lagros Rose indi na état entraîné na def na li mu war a def lépp mais des na état bi Lac indi des na tuuti mën na am leneen lu gën loolu état bi des na Jackson nag tamit ñi ngi koy encouragé ne ko nag làmb nii la liggéey na li mu war a liggéey lépp def na lépp li mu war a def ndax boo xoolee lépp li mu war a bëri ak Lac Rose def na ko noonu la war na bëri ak Lac Rose juum nag fi muy juume mooy ci song mi nga xam ne moom la songu la Rose ndax dafa dajale ñaari tànk yi daw di song la Rose laal plaqué jiital ñaari tànk yi Lac Rose fàq ko mu rëpp daanu mais nag démérité wul boo xoolee ci bëre bi moom moo déclenché xeex xeex na Lac ba xaw ko dominer ci xeex bi mais mënoon na ko continuer mais li tax tamit mu seet sa bëre bi laajtewuñu ñu ku dóor ku daan la ñuy laajte mu seet sa bëre bi foofu am na solo trop ci li mu def mais nag làmb noonu la Jackson da nga daan soq daan ñaq jariñu daan Amed Dem daan Naaru Sokaas daan Pape Ndoye mii di lakk ragrose gëj nga daanu huit ans nga toog yoo xam te ni sa ginnaaw gi laalu suuf làmb nag des fois da ngay daanu pour nga jàngaat pour mën a defaraat sa yoon ndax Lac Rose keroog bi ko naaru sokaas daanee stade Iba Mar dafa yendoo jooy ba ngoon jot yu ne war mu ne naaru sokaas bi mu bëreeg su lay topp numéro 2 dafa xaaju ne ko naaru sokaas moo ma def mbër maa koy sant di ko gërëm ndax moo ma def mbër sa tàkkusaan ak Lac Rose bii nii tàkkusaan bii ci la Lac Rose di defee mbër ba faw tàkkusaan bi nga bëreeg Lac Rose mu daan la ci la lay defee mbër ba faw ndax nag boo xoolee Lac Rose moom moo la jiitu ci làmb Jackson Lac Rose moom moo la jiitu ci làmb moo la ëpp expérience ci làmb ndax boo xoolee Lac mu bëreeg Ronaldinho Lac Rose mu bëreeg Aliou Mané Lac Rose mu bëreeg Pape Sandika lagros mu bëreeg Mame Balla lagros Rose mu bëreeg Modou Anta lagros mu bëreeg Souley Top numéro 2 lagros mu bëreeg saafaanu Lac mu bëreeg Sa lagros Lac Rose mu bëreeg Garga Mbossé Lac Rose mu bëreeg Coens Lac Rose mu bëreeg Fils de Balla lagros bu bëreeg ay ndaanaan yu bare bare bari ci làmb moo la ëpp expérience ci làmb tàkku yi Lac Rose bëre bëree goo ko Jackson kon lii moo lay def champion du sa yaafuus déedéet du ñàkk a jekk ndax mbër des fois mu daanu xëcc ñi ko doon ñaanal dàq ñu bari nañ mënul maa ñaanal ana ñi la daan ñaanal ngay am ndam tey ñoo la ñaanal mais yàlla sunu borom moo jël li nga xam ne moom mooy di ndam li jox ko Lac Rose bul ñàkki ma ko bul xas ñi nga daan àndal àndalaat ñi nga daan àndal ñi nga daan àndal ci làmb del ànd ak ñoom ba tey démérité woo ndax boo ñëwoon bëree woo xeexoo Lac Rose duma la daan la waaw mais yaa bëree yaa xeex yaa daanu te làmb noonu la ñaari gor la ndam li génnul senegal da ngeen doon wuti ndam Lac Rose démb dafa indi rakkam Papa Ndoye ëmb ko cat daaw defal daan ko tey bu la daanee xalaatal ne yàlla sunu borom moom mooy may ndam moom moo ko may ndam ne Lac Rose mu def mu entraîné waat ba mu yaafuus tamit maa daan Jackson rek. maa bëreeg fils de Balla nii rek mu tax nga yaafuus ndax sa bët fi nga teg ci làmb du fii la grosse boo xoolee Ama Baldé daf la xaw a raw ci làmb Boy ñaar daf la xaw a ram ci xaw a ram xaw raw ci làmb te am nga foo tegoon sa bët ci làmb am na nag li la ko doon may fi nga jàppoon nag ba mel nii bu ko ti mukk gënaata la entraîner gënaata la raayaat sa bopp gënaata la toogaat ci dini te bàyyi noobul geeg noos gi yow làmb da ci bokk da nga war a lekk ci xaalisu làmb far ndax dafa am say nawle yoo xam te ni yéen ak ñoom a débuté ndoo te mënuñu la dàquñu la bëre niñ ko yaa ni leen yaakaarale woon Ama Baldé ni ko waa Pikine yaakaare woon boo ñëwee waa Pikine yaakaare yoon noonu la la waa Fass ak Grand Dakar yaakaare woon ci làmb yaa ngi ñëwaat yaa ngi ci yoon bi xam nga li la ko may ñam nga défaite ñam nga victoire ñam nga tolof tolof ci làmb boo xoolee sa entourage ñi la toppoon ñu baree baree bari gisutoo kenn bi nga daanoo bi nga nekkee ci ay jafe-jafe xool ñëppay ñëwaat bi nga daanoo nekk ci ay tolof tolof doo gis kenn doo gis kenn ku la jàppale mais fi mu ne nii di nga gisaat jàppale yi di nga gisaat fans yi di nga gisaat nit ñi yaay defaraat sa entourage xam li nga bëgg xam ne làmb rek nga am làmb rek nga am amoo leneen lu dul làmb làmb rek nga am te ci la sa nga nekk ci la sa gagne-pain nekk kon da koy fonk boo ko fonkee nee naa la mbër ëpp la fit ci àdduna mbër dàqu la bëre ndax sama kipaaru papa nga yaroo Serigne Ndiaye sama papa moom moo la jàngal li nga xam ne moom moo di bëre nga nekk ci kipaaram bi ngay ñëw faas mi ngi koy maa ngi koy rappelé wu nga nekk booy bari woon nga say moroom yoo xam te ni yaa ngi nekkandoog ñoom ci écurie bi mais ni nga ko jëloon en charge jëloon làmb ji gëm ko ñi me rayante ñi me wàcc ci suuf ñi me yéeg ci din yi ñi me ñi me géej gi moo la mayoon li nga yegg ci tey ci sa làmb ndax bari woon nga say moroom yoo xam te ni yàgg ñoo ma débuté ndoor ci làmb suñu borom wërsëgal la lépp dinaa la ci tuddal ñetti nit wala ñeenti nit yoo xam te ni bi ngay ñëw faas yaa ngi leen fekk wala yéen a débuté ndoo muy xaadim bu Fass canadien xaadim canadien bu faas anamu yéen a débuté doon te woon ko bëre mais suñu borom yow la wërsëg bari na ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xam te nii yàgg ñoo ma débuté ndoo làmb bul yaa fus entraîneel nga ray sa bopp ñu bari nag dañuy jàpp li may wax ci yow dama la bañ déedéet barke borom Tuubaa Mbàkke bañu ma la billaahi wallaahi taala ku la bëgg laa ndax sama kippaaru papa nga defar nga doon champion sama sac la n damaan kii sama papa ko defar ba mu fii wala am na lu sama papa def ci moom ba mu yegg si fii kon sama sag nga li may wax nag di la critiquer wala di génn di wax nit ñi jàpp na dama la bañ déedéet bañu ma la dama bëgg nga réussir dama bëgg ndax raayante nga ba jënd kër raayante nga ba def yeneen ak yeneen dama bëgg nga réussir ci làmb réussir bi mooy da nga xam li nga xam ne mooy làmb moo koy may muy entraîner nga mën a bëre nga am jom nga am fit amoo looy tiit ci làmb kon mu nga ko béy billaahi wallaahi taalaay su ma la bañee li ma def tey du ko def li ma def tey su ma la bañoon du ma ko def ndax genn kilifa daf ma woo bi ma woowee ne ma damay gis ngay génn sorti di wax ci lagros sa digganteeg Lac lan moo ci xew kilifa gee ma woo mu ne ko sama digganteeg Lac Rose te dara xewu fi mu ne ma ankay damay gis ngay faral di wax ci Lac Rose lu bari mu ko billaay sama digganteeg moom dara xew ci mu ne ma am na loo xam te ni su ma la ko waxee mën nga ko wax lagros Rose wala nga wax ku jege ñaale te bu ko defee dina daan Jackson mu ne ko wax ma ko mu ne ma nekkoon na jënd yàpp mu génne ko saraxe ko ci kombaa bi booba caatu yaraax bëri na ak ki nga xam ne moom moo di njaaytin ba pare yow yaa war a des pour dugg ci géew bi mu ne ma bu ko jëndee de billaahi wallaahi talaahi kenn mënu koo te ba du daan Jackson ñoo fa jóge ma ne ma dem ba ci yàgg ma ne naa dem rek wax ko ko ndax yërëm naa ko ni Papa Ndoye ñàkkee làmbam démb tey bu ñàkkaatee làmbam presque day na metti ma dem ba ci sa cummikaay yàlla dogal ma gis pëti xaw ma sax ba xam neex na comme déet mu waxee pëti di mag ci góor gi si Dieng maa ngi ko fekk si cummikaay li dal ne ko grand mu ne ma waaw moo grand taala ñoom ñoo taxaw grand taala taximan bi nu daan àndal bu yàgg ak yow ñoom ñaar ñoo taxaw mu ne ko grand mu ne waaw mu ne ko maa ngi lay nuyu bu baax mu ne maa ngi lay fay ñu ne ko man de dama toog léegi benn kilifa woo ma dal ne ma lagros de bu fekkee bëgg naa daan Jackson léegi léegi nii fii mu taxaw na génn nañ ko génneel yàpp si laa ko ko waxee mu ne ma yàpp mu ne ko waaw mu ne ma baax na moonte digaloon nañu ko waxoon nañu ko de mais est def nañ ko daal di ñëw ci booy bi nga xam ne moom moo koy jox téléphone bi daal di wax ak moom mu waxee mu jox ko mu ne xaaral ma woo yaayam mu génne ko ci la jëlee sa daal numéro bi daal di woote wax ne pour ñu génneel la yàpp woowu te kilifa bi ñu ko génnee ba pare mu ne ma génne nañ ko ci la ne ma billaahi wallaahi taala xaw ma luy am mais billaahi wallaahi taalaay Jackson du daan la grosse mukk ci àdduna la grosse dina ko daan te effectivement noonu la dene comme bañu ma la am naa lu ma bëgg nga yegg ko ci làmb am naa fu ma bëgg nga yeggu si làmb te bari nga nag ñoo mën a bëreet ci làmb ndax bunt yi ubbeeku na bu ñu waxee Lac wax Alioune Seye combat bu jaadu la Lac Rose Alioune Seye ndax da nga dugg Géejawaay bëri faak fils del ngeen mag si niil nga ñëw daan ki nga xam ne moom moo di Jackson ñu naan ma kon sa diggante ak Alioune Seye bu leer Alioune Seye daan Coence nga bëre si ñàkk. yow nga daan ki nga xam ne moom moo di Jackson sa diggante ak Alioune Seye combat bu neex la. diggante Lac Rose ak Sa nit ñaa ngi koy laam-laamee ba tey mën na nekk muy combat revanche ndax bi mu lay daan nee nga da nga feebaroon da nekkoon ci ay tolof tolof. revanche bi jaatu na ndax fi mu ne làmbu Lac Rose kenn mënatu laa bañ ci làmbu mën nga bëreeg franc mën nga bëreeg ñu baree baree bari ci làmbu tey kenn mënu bañ ci làmb mën nga bëreeg jën kay rek bu fekkee da ngeen di bëre ndax diggante Fass ak Medina dañu xaw a jegente trop trop trop. dama xamul ba xam di ngeen bëreem déet mais bu fekkee da ngeen di bëre yàgg Diène Kairé jaadu na bari nga ñoo mën a bëreel ci làmb même Zarko bu fekkee dafa génn ci Bébé Diène war nga mën a bëre ak ñoom ama neex ñaa bu ndaw ku ci daan war nga mën a ak ñoom ci làmb lagros mën nga bëre mën a bëre ñu bare bare bare bare bari ci làmb góor góorlul nga defaraat sa entourage nga déggal say mag ci ñi la mag ci làmb déggal sa staff foo bëgg a yegg ci làmb dinañ ko yegg te Fass booloo bi ñu booloo dafa am solo lii amaat na leneen lu mu wëndiwaat ci làmb lii amaat na waat lu waat Fass waraat def baraat seen tànk defaraat seen xar kanam xam ne amaat na loolu ci jàngaate lu baree baree bari bon xoolee seen sorti yu mujj yaakaar naa benn defet bi ngeen ngeen ci ñàkk muy Papa Ndoye kon booloowaat leen ngeen mel ni ngeen meloon muy Serigne Ndiaye ak la grosse ñuy solante mbubb di entraîné bokku ndey ak bàyyi te bañ a dox ci seytaane yi mbër nag bul daan rek defe ne yegg nga yaay champion bi yaay yaay faas kenn mënta nekk champion. da leen di yàqal lu bari wala fans yi bëgg leen a jaxase xoolal Serigne Ndiaye keroog bi mu ñëwee ni la xoolee xoolal jiw xoolal bëgg leen a leen loolu. booloo leen xam ne boo leen booloo kenn mënut ci yéen dara booloo leen bokku leen ndey bokku leen bàyyi di àndandoo di leen def lépp ndax da ngeen di daan commencé succès yéeg nit ñi fans yi commencé leen a boole. xoolal diw xoolal diw ni mu lay xoolee ngeen di xaante lag mbag di moytonte booloo leen ni ngeen def dafa naaj gis naa Serigne Ndiaye ñaari fan yi yëpp ni nga taxawoo ñoom Lagros ni nga taxawoo Giri ñetti fan yi sax ni nga taxawoo Giri 2 taxawoo ko Pape Ndoye taxawoo ko Lagros dañ la ci encouragé di la ci félicité bu baax a baax li nga def geste bu nice nga def geste noble nga def ndax dañoo xool yow yaa leen gën a bëgg ndam muy Lagros muy Giri 2 muy Pape Ndoye yow Serigne Ndiaye yaa leen gën a bëgg ndam li boo xoolee ànd bi ngay ànd ak yow xol bu set ngay ànd ak ñoom leen xam ne mën ngeen am lu baree bari ci làmb waaye mbokk yi tamit dafa amaat beneen phénomène boo xam te ni dafa feeñ bu ñu ko waxee muy prince bu Pikine wax naa ko ay entourage am wax ñi nga xam ne ñoom la àndal nee naa la ko bis boo daanee Oli Guens ma nangul la sa champion. effectivement daan nga Oli Guens ci avec la manière doonte nag bëri nga erreur mais noonu la mbër des fois boo deful erreur daan daa am lu la ci jàngat lu bari daan nga nag victoire bi neex na trop mais bëri nga erreur mais dañ la ciy féliciter man tey laa la nangu sa champion.